asalaamaaleykum mbokki département de Mbour asalaamaaleykum population commune de Malicounda ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen di remercier di ñëw rekk ci li tax ñu woote fi tey pour waxtaan ak yéen ci xew-xew yi nga xamante ni am nañu ci commission administrative yi nga xam ne taxawal nañ ko ci biir commune Malicounda commission yooyu ñoom ñooy bind nit ñi ñu gis ci ay jafe-jafe ba tax tey ñu woote pour waxtaan ak mbokki département de Mbour loolu jàpp naa ne dégg ngeen suñuy naataangoo yi jël kàddu wax léegi liñ ci wax ñun duñ delluwaat ci loolu dañu indi ci lu gàtt ay précision ak aussi ñu mën a alerter wax nañ ko fi sànq ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy teg opposition bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Malicounda ci wàllu mbind mi bi mbind mi taxawee <clears throat> ba léegi ñu ngi constaté ay jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy wut wàllu kayit pour mën a bindu bu ñu ñëwee ci mairie bi ñu am fa ay jafe-jafe bu ñu demee ci chef de village yi nga xam ne ñoom ñooy joxe domicile yi également ñu am foofu ay jafe-jafe te ay citoyen lañu ñu am droit voter ba tax ñu créer commission yooyu kon nag dama jàpp ni warul am jafe-jafe mais waat dañ leen ko war a yombalal loolu mooy yoon waaye gis nañu ne bi loolu amee ba tey ñoom suñu bëggee kayit ñu bëgg domicile bu ñu demee ci chef de quartier yi dañuy am ay problème ñu leen koy jafel buñ demee ci mairie bi également bëgg résidence ñu indil leen foofu également ay jafe-jafe ndax ñenn ñi dem nañu wuti domicile domicile yooyu ñu dem ba ci mairie bi ñu ni domicile yi baaxul maanaam reconnaître ñu domicile yi délégué de quartier yi di def parce que par exemple bu ma jëlee kaawu Malicounda Wolof Malicounda Wolof ku nekk xam na ni ay amoo ñoo ko composé amoo yooyu amoo bu ci nekk am na un délégué bu fa nekk koo xamante ni moom moo nekk foofu xam ñi fa dëkk kon yaakaar naa ni kooku moo gën a yeyoo pour délivrer certificat de domicile ndax xam na ñi dëkk ci amoom par rapport ak chef de village bi fa mu dëkk du xam ñi dëkk foofu kon defe naa ni kooku bu indee ab domicile domicile boobu war nañ ko mën a reconnaître mais yooyu day ngay wut domicile ba pare nga dem da ngay jaaraat ca chef de village bi mu sànni domicile bi nga xam ne moo jógee ca kooku mu defaraat beneen domicile loolu ay jafe-jafe la yu nga xam ne ñu ngi koy teg ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi beneen bi muy wàllu résidence yi da ngay jël ay domicile bind ba noppi nga dem ci mairie bi te obligé ñu jox la un pour nga jot ci maanaam doo dem ci bés bi jot ko ci bés bi loolu également forme de blocage la boo xam ne ñu ngi leen koy teg ñu jàpp ne yooyu mën naa ñàkk mbir mi citoyen bu nekk war ngaa am sa carte électeur bu ñu ubbee commission yi kon dañu war a yombalal nit ñi yëf yi loolu ñun lu ñu mën rek mooy saisir ki nga xam ne moo fi nekk comme arbitre muy le sous-préfet saisir nañ ko nee na saisir na leen foofu lañ ci mën a yem mais mënuñu def leneen mooy bu ñu amee jafe-jafe ñu saisir ñi nga xam ne ñoo fi ne saisir nañ ko nag en tant que le sous-préfet moom nee na wax na ak ñoom <coughs> mais ba léegi mbir mi changé wul ñu bëggoon nit ñi yëg loolu Euh, beneen bi wax nañ ko fi sànq muy wàllu transfert yi ñu gis ne ki nga xam ne mooy le meilleur maire du Sénégal yaakaarul bilaam ndax bu yaakaaroon bilaam yaakaar naa ni du yaakaar di dem di wuti ay transfert feneen nit boo yaakaaree sa bilan boo liggéeyee plus de cinq ans sa mandat cinq ans la woon nga ni ñu puusal la ba yaa ngi ci sept ans liggéey nga commune Malicounda da nga waroon dem tëdd sa njaxanaay tëdd sa lal te jàpp na dinañ la falaat parce que am nga bilan bu positif waaye li ñu gis tey mooy gis nañu ne yaakaarul bilan boobu li ñu yaakaar mooy maanaam wuti doole feneen moo tax muy jëli ay nit mbuur ci quartier yi nekk ci mbuur di leen transféré ci biir commune Malicounda te loolu yaakaar naa ni dafa ñaaw waa commune mbuur war ngeen a wax ak seeni nit loolu yàgg nañ koy wax te yëg nañu également moom dugg na ci biir commune mbuur ñoom waa commune mbuur yëg nañ ko comme yëg nañ ne mu ngi dugg foofu di jël seeni nit ñoom responsable yi nekk biir commune mbuur nañu jóg dem wax ak seeni nit pour que kii bañ leen di leen jëli buur di leen yóbbu commune Malikounda di leen fa yóbbu di leen fi transféré pour ñu votel ko ñuy wax ñooñu également di leen alerter nee leen jeunesse su Malikounda booloo na tey ànd nañu joxante loxo opposition bi yépp joxante nañ loxo te dañoo pare tey pour xeex loolu ba loolu du fi amee ñi dëkkul biir commune Malicounda ngelawaay toog leen seen dëkk nañu toog ci seen commune votel seen maire commune parce que même bu ñu leen jëndee tey ñu dem Malicounda votel commune Malicounda voté ci biir votel maire di fi ne tey bu ëllëgee du leen mën a defal dara ndax amul sañ-sañu jël ci budget commune Malicounda di leen koy defal kon kenn ku ci ne sa dëkk nga am sa commune nga am toogal sa commune nga lig nga votel sa maire ñun nag pare nañ joxante loxo ba dem jusqu'au bout ba ci élection yi sax dinañ organiser wu ba képp ku ñu xam ku ñu gis mu ñëw di voté si te dëkkuloo biir commune Malicounda ñu fexe ba doo fi voté loolu dañ koy pare même bu ñu leen transféré ñu jox leen ay carte électeur dinañ fexe ba barrer la route à ces gens-là ñu ñëw di voter ci suñu biir commune parce que loolu du yoon du dëgg du yoon du nangu loolu du ñu nangu ñu fi fal koo xamante ni amul crédibilité bu amoon crédibilité te yaakaar bi naam yaakaar naa ni du dem ci yeneen dëkk yi di fa wutee transfert kon xam na ni tey commune Malicounda amatu fa yaakaar. gis na ni nit ñi weddi nañ ko tey nag feneen la yaakaar foofu la bëgg a wuti doole loolu bu yeboon nag nit ñi xam ko te ñu xam ni tey opposition wu Malicounda pare na pour bare la route ak ci nit ñooñu pour ñu ñëw di jàppale ki ne pour di ko jéem a voter suñu biir commune donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais loolu am na ma jàpp ne yéen it yéen journaliste yi doxantu leen ba ci commission ba fa ñu bindee da ngeen di ñëw ba foofu ngeen di xool la fay xew beneen bi également maa ngi ñaax suñuy représentant yi nga xamante ni ñoo nekk ñoo ñu toogal ci commission boobu ñoom ñu ngi leen di ñaax pour ñu gën a vigilant bu ñu nañu bu ñu xëyee nañu xëy huit bala ñu fa jóge nañu bàyyi ba gaay ñibbi nañu bàyyi ba ñoom ñu ñibbi. dañoo ñu ci. waaw li tax may wax loolu nañu bàyyi ba nit ñi ñibbi loolu moo tax parce que man mii tey am na jeudi ba le passé coow bu fa amoon te coow li ko indi mooy loolu mooy wàllu transfert yi dafa am ku ñëw. di ñëw di bindu si ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu fa toogal ñu xam ko xam ne mbuur la dëkk ñu laaj ko questionné ko mu ni mbuur la dëkk lu ko fa indi ah moom dafa ñëw dañ koo jox dafa ñu war a ñëw pour bindu fii booy taxaw ne loolu du fi amee loolu moo indi woon coow li ba ñu nee coow ba ñu nee du fa amee nag toog nañu ba lu yàgg ëpp na une de temps ci li ñu ma wax quelque ñu baaree yëf yi ba ñoom ñu ne alors dañuy arrêté. bon en fait euh, je vais éclaircir par rapport ak question boobu. ma ma àggale. ma àggale ça il paraît que c'est pas benn nit c'est une car la ah car. car la quoi. car en fait car la ñu yëg ne. dañu arrêté à partir de le représentant. car moom la ñu indi foofu ñu xam dañu leen jëlee en beau. waaw ok dem ci foofu. voilà. loolu loolu loolu loolu koy eh, c'est évident néew ma kenn nit maanaam dañ fa indi oto bi problème bi ma ni nit kooku lañu questionné bi yooyu amee alors ñu arrêté ñoom ñu ne arrêté nañu ba ñu ne arrêté nañu alors ñu toog ab diir bo ñi ñu fa représenté woon dem bañ ne arrêté nañu bi ñu demee ñoom ñu bàyyi ba ñoo ñu dem rek ñu ñu continuer liggéey parce que man dama dama jóge mbuur may ñibbisi ma tombe ci ma fekk leen ñoom ñuy liggéey ci guddi gi te boobu 18 heures passé na ñu continuer di liggéey di bind nit ñi bi ma ñëwee ma ma ñëw ma wàcc ma constaté ñoom ñu ngi bind te gisuma kenn ci ñi nga xam ne ñoo ñooy toog foofu parti yi représentant parti yi gisuma fa kenn ma ne leen yéen yéen a ngi bind te représentant parti yi gisuma fi kenn lan moo tax loolu ñoom ñu ne ma problème moo fi amoon